abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar. leen ak jàmm seen seen bii di FTTV Sénégal kii di Aïssata Tall sàll mer bu kii di président Macky sàll doon mer daal dina ko koy wàll lu tax ñu wax li ni mel mooy que ne kii di Aïssata Tall Sall. ginnaaw ba mu demee assemblée nationale ngir ñu voteel ko budget bi nga xam ne ne dafa war a dem ci ministère am bu muy te muy ministère de la justice. kookay di Aïssata Tall Sall mer ak funkee ka la fa nekkee di menacer Sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk à ndax kii di Aïssata Tall Sall ne dootul bàyyiti benn sénégalais bu nekk extérieur di amal ay actes terroristes te la topp di amal ay actes te kookee duñ la topp duñ la lancer ab mandat d'arrêt loolee day dakk ndax bépp sénégalais bu nekk bitim réew léegi di amal ay acte terroriste kookee dinañ ko lancé ab mandat d'arrêt si li ni mel nag ku ci amal ab ñanga danga gis que ne kii di Aïssata Tall Sall daa jël taxawaayu kii di président Macky Sall daal di fay taxaw ndax ñoom ci réew mi di Sénégal ñooy jàppalu ñooy tëjlu ñooy dóorlu ba noppi ñoom ñooy mer te dëggantaan bu ne terroriste ci réew mi di Sénégal du kenn ku di kii di président Macky Sall ak gouvernement ndax ñoo ñooñee rek ñooy bàyyi ba peuple bi génn di amal ay marche pacifique ñu daal di leen di yónnee ay takk der ak i nervi ñooñee di ci rey ñoo ñooñee rek ñoo fi tere liñ dippee liberté d'expression liberté d'opinion ak liberté de manifestation waxtu bu ñuy wax ni si réew mi di Sénégal balaa nit di ŋang sax ñu jël ko daal di koy tëj ci kaso bi donc bu fi terroriste amee génnu leen ndax ñoom ñoo terroriser askan wi Sénégal ñu ngi fi jàpp ñëpp di leen jiñ terroriste ñooñee ci waxu politique lañ àddu kon liy dëgg mooy que ne gouvernement kii di président Macky Sall ñoom ñooy politiciens yi nga xam ne dañuy bañ képp kuy wax ci politique lu leen di déranger ndax kuy amal li ni mel dinañ la tëj ci kaso bi jiñ la terroriste ba noppi nag taxawee ne di funkeeka meraka néew yi Abonnez-vous Abonnez-vous nous chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, c'est